salaamaaleykum mbokku internet yi ñoo ngi leen di nuyu di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ziar ñëpp ci vendredi bi leen wax juma mubarak vendredi tey 4 août 2023 ñu am mbégte teew fii ngir andi leen li fi gën a fës te li nga xam ni mooy xibaar yi comme niñ koy defee saa su ne dinañ leen andil mbir mi ci ñetti pàcc pàcc bu njëkk bi mooy suñu jàngat ñun ñun suñu jàngatu bopp ñun nga xam ni bokkuñu ko kenn ci li yéene kaay yi génne ñu toj ko faram fàccee ko buñ si paree ñu defal leen li nga xam ne mooy jàngatu actualité bi gën leen ko expliquer aider leen à comprendre

71 32 kon képp koo xam ni bu nga jokkook ñun ci kanam mën nañ jàpp ni dans incha allah 50 minutes danga nga mun dugg wax li nga xam ni moom nga gisee li xew ci réew mi dina si bokk nag lu fës a fës te lu yaatu nañ si dellusi si mooy njiitu réew mi am jafé jafé, jafe yu maga maga mak pour tan ku koy wutu ci bop réew mi maanaam mbeureum mbërëm moom xam nga sax duma moy tan ki koy wutu mais manam mun na am mbeur nak ne ki la moy sama mbeur mom la yene mu remplacer ma mais jafe-jafe yu ci si am duko wax kenn ne si delu si lu yaatu yaatu yaatu meneen bi mooy attentat yaraax bi ba léegi génnagul si li nga xam ni mooy actualité bi nee naa leen sénégalais dafa gaaw fàtte man nag bu demee ba ñëpp fàtte man maa leen di fàttali leen di fàttali ni tey tey mooy le 3 juillet tey la Bougazelli def 3 ans 4 mois de liberté provisoire Bougazeli moy ndaw APR bobu nekkoon député gendarmerie jàppoon ko ci flagrant délit de defar faux bañ ko yobbo prison ndax loolu dafa néwon weng ñëpp gis ko ñemewuñ ko bañ yobbu prison waye bañ ko yobbo prison ba mu def ab dir mu tollu ci juróom benn weer dañoo yeewu suba teel rek jox ko liberté provisoire liberté provisoire boobu nag def na ñetti at ak ñeenti weer muy mbir bu yéeme Aliou Sané bu Y'en a dañ ko may liberté provisoire matul ñaari weer ñu woowaat ko juge ko dugal ko ci prison bi keneen ak keneen waaye Bougazeli moom mel na ni dossier moom juge ba ko yoroon dossier ba da koo réer wala dossier bi moom dafa jël décision ni tootu si waxati te Bougazeli nee nañu Ousmane Sonko dafa tooñ Adji saar ñu ne Ousmane Sonko daa tooñ Mame Mbaye moo tax ñu koy toppee li ñu koy toppee mais Bougazeli dafa tooñ réew yëpp moom réew mi yëpp la tooñ ndax xam nga luy phobie xam nga phobie nu mun na sa xale économie réew moom lañ ko jàppee flagrant délit ñun nag tant que ñu ngi lay topp te jugé guñ la ñun gëm nañ sa innocence waaye mbir dafa am juge d'instruction mënul jël nit yew suba tel bàyyi ko mu ñibbi këram ñu jël affaire bi classé ko sans suite Bougazelli dafa dem procès lu tax mu war a dem procès sax ma leen di xamal ni ñeenti nit yu mu àndaloon ci mbir mi te ñëpp jàpp ni moom mooy cerveau bi d'après li gendarmerie wax ñooñu ba tey ñu ngi ci prison bi depuis quatre ans et quelques ñooñu ñu ngi ci prison bi te Bougazelli ma fàttali leen ni bi koy bàyyi liberté provisoire la ñu waxoon pour raison de santé waaye liberté provisoire pour raison de santé trois ans quatre mois chaque le trois dinaa fàttali Sénégalais yi ni Bougazelli dañ ko war a juge dégg nga kon pap ñu jàll si yéene kaay yi ah ndax pare na ñuy sant ñu koy defar xam nga lii nii liggéey bii daa am ñu koy defar jox ko ay nit ñooñu partage ko gaa yi ba duñ si def attention yéen kaay gi dañuy ñëw rek def revue de presse mais liggéey bii ngay gis nii daa am ñu koy def moo tax may nuyu Mamadou Ly nee na nee mom mom xamal na ma ni xaju gudi lay yew punyun 4h du matin li pour ñun buñu yewoo mun si jot akon ah, kon ngàcce nga laama mom waay ah pap waaw waaw acca ñu dem ñu dem ñii nee nañu waa réew mi xam nga pap moom fu ko neex lay ubbee waa réew mi ñu ne le Sénégal se dote d'un patrouilleur lance-missile ni xeetu ngànnaay la baax na am na solo ndax qui veut la paix prépare la guerre jërëjëf réew mi ñoom dañoo fël seen titre tey ñoom rek ñoo ñoo ñoo fël foofu jërëjëf aca le gouvernement dit tout suite wax na ci am waxu attentat wu yarax bi nee nañ joxe nañu turu blessé yi ak turu ñaar ñi génn àdduna dégg ah dinañ si delu si lolu ci lolu lolu bokk na si point yi nga xamni mom lañuy chroniquer inshallah allah sud <coughs> acha? ah hein? ni ñan la ah hein? GP waaw waaw waaw waaw hmm? Jalal, Jalal, le gouvernement passe à l'offensive l'info ah ñu ne gouvernement bi tekk tekkaaral bi mu nekkoon génn na si yaa ngi dégg dóor photo Amadou Ba bu rafet <laughs> ah lu tax defuñu photo gouvernement bi gouvernement bi am na photo lu wax la gouvernement passe à l'offensive kon du Amadou Ba rek Amadou Ba mooy patron gouvernement bi mais gouvernement bi am na photo pourquoi si contexte bi tey ñu jël Amadou Ba ne ko fàng teg ko ca kaw te Amadou Ba am lu muy xëccoo laaj la de acca <laughs> jàllal <laughs> ah redéfinition d'un horizon propre vingt-quatre heures hmm? acca acca jàllal ñii ñooy bés bi nee nañ Dakar pare na Dakar pare na lan pour bokk ñooy dem songi militaire ya yore Niger dinaa taxaw fii tuuti de Mali a am coup d'état amul intervention militaire Guinée am coup d'état amul intervention militaire Burkina am coup d'état amul intervention militaire lan moo tax waa CEDEAO ne par la force dinañ song Niger pourquoi xana du même traitement yi la ñu war a traité hein? ma wax la leeral comme que ñun suñu CEDEAO bi CEDEAO tubaab bi la ñoo diriger di len wax lu ñuy def suñu CEDEAO bi li tax ñu bëgg dal ci Niger moy moy njit yu bees lepp lu fa France amone dañ ko dagg déggoo ma de lépp lu fa France amoon nee nañu teg nañ ci loxo delloo ci ko si réew mi maanaam nationalisation <laughs> waaw intervention militaire xam nga lu muy coûter ab réew lëmm nga ne da ngay dem xeex ak ñoom ah te yi su des yëpp man su fekkoon chaque jour sax ñu dem xeexi ñu mun wax mais depuis Yaya Jammeh te Yaya jàmme sax xeexuñu dañoo ñëw indi seeni char rek Yaya daw pourquoi ñu bugg xeex ni si te xeexuñu Mali xeexuñu Burkina xeexuñu Guinée pourquoi waaye yéen loolu lool bisaaru si yéen ca ñu dem ñu dem naan Dakar est prêt dem leen dem leen dëkku jàmbur xeexi naa doomu jàmbur yi rek militaires yi doomu jàmbur yi xam nga doomu président bu nekk militaire doo ko dégg voilà xam nga doomu ministre bu nekk militaire doo ko dégg ñaan lañ nar a sacrifier doomu jàmbur yi ah waaw euh, Dakar Time moom daa fël fëlam na programme de mille milliards en détail cent milliards acca ndey fu mu nii tal nañ leneen lu dul genre titre yi waaye <laughs> Sénégal gi daa yëngu de ñoo fii di ñu wax ay programme cent milliards de dégg nga ju baax <laughs> yow est-ce que tal nga loolu yow <laughs> mane ne ma ne ma ne muut baal leen ñu ko rek jéggal leen ñu ko ñun fu mu nii moom leneen lañ tal acca les écoles lu mu wax waaw <laughs> lii mooy réunion pole ba ah non réunion pole ba dépp sabar bu tas la <laughs> non <laughs> non dinaa ñëw ci detaay ci chronique bi mais sabar xam nga sabar bu tas mais dem on a vu du n'importe quoi ne si cappaandaw ga xam nga lu lu leen ma ki wax <laughs> yéen a ma joxoon seen carte blanche anam maanaam feuille bii xam nga binduñu si dara waa APR ak benn bokk yaakaar dañoo newoon yow Macky Sall jëlal bic bind fii benn tour boo bindee benn tur kookoy suñu candidat <laughs> waaye loolu yomb te neex ah mais nee naa leen démb la def un mois tey la def un mois un jour tey la def trente et un jours ñu ne Macky bindal Macky mënul bind non non seulement mënul bind mais Macky Sall nee na leen am leen seen carte blanche ak seen bic maa bindul <laughs> non mais tey ku rate chronique bi ah ah non tey ku rate ah. ku rate chronique bi rate chronique bi gën a rëy ci àdduna avancel nous dem nous dem si yéene kay <laughs> non non non non non non non non non non non <laughs> ba Vous rek enquête wax le douloureux accouchement <laughs> maké mënul tan. mais maki saa yu faire, le premier ministre wala former gouvernement gars dañuy faté rek mais ni lay le temps Macky moo mënul tànn moo buggul tànn est xam nga Pape Macky mosul am numéro 2 ci parti Macky mosul dem campagne am directeur de campagne ah Macky fi supprimer post premier ministre comme Abdou Diouf nu mu ko supprimer woon maanaam numéro 2 lay bañ moom moom rek. tey gis nga si chronique bi naa leen jàngatal benn affaire li Macky def nii taxawaay bu mu taxaw nii c'est louche dinaa leen wax lu tax moom nga xaar leen chronique bi rek ah ku sa connexion di waaj a jeex dollil connexion <laughs> Pape ku sa connexion di waaj a jeex may naa la nga dem dolli gaaw ku sa xarit suivrul actuellement nii woo ko téléphone ne ko suivral duudu bali public sn tv dégg wuy ma su affaire yi jógul maanaam yow xam yaa ngi xool compteur bi bu jógul ba jóg su ma defee revue de presse bi ma pare ma jóg man tamit bu jógee ma xam ni li may def nii intéressé na leen dégg nga ah ah ma continuer a ah, kon partager leen lien bi partager leen ko <laughs> na gaaw <laughs> ah <laughs> voilà continuer wu ma de maa ngi nii taxaw kon partager leen lien bi tant que pap newuma compteur bi jóg na duma ma yére moom seen connexion man maa moom saway wax ah waaw ma konne tuuti si revue de presse bi am ñu dabe mais su ma demee ba yegg chronique ba pap damay tax aca continuer joxaat mu beneen yéene kaay ah ñun tal ñun liñ daan tey de waaye ma ne ma ne ma ne ma ah, tey tey moom fi ngeen fëll ah baax na de yéen yéen bu leen yéenay jaay seen journal mais neexul Doudou Coulibaly baax na baax na de yow waaye ma ne ma ne baax na rombal ma source A tey maa leen waxul man maa leen waxul ñoom taxawuma ci demal ci keneen direct news nu ñu wax maa Mansour fay recalé waa yéen da ngeen mosoon dégg nii maa fay Faye daal non dama lay laaj lan moo xew qu'est-ce qui s'est passé hier au palais ba gaa yi xëy direct news li ñu wax dëgg la de mais coow bi démb entre Mansour Faye ak Macky ñaari goro yi <laughs> non mais chronique bi a neex mais yow ñaari ñaari goro yi borosante nañu borosante nañu démb <laughs> non extraordinaire déggoo ma de borosante nañu xëccoo Mansour ne ko man samp naa sama ndënd mu ne ko eh doo fi sampee sa ndënd yéen dèjà yéen ngi ma envoyé moom euh, Amadou Mame Diop seen cousin mënumaa régler problème boobu ngeen andil ma ay jaaba jaaba may wax nga jóge fële ñëw naan ma ay dévolution monarchique du pouvoir maki tànn la comme candidat beau frère lol da mun ne sou deugal bopam mu ne ko do wax ay chronique bi <laughs> ñu dem ñu dem <laughs> non pas le dem comme sawar bu tass ah ki neena la purge hein le quotidien mais le quotidien laa yàkkaaroon ni tey ñoo ñuy jox xibaar yu rëy ci réunion pale bi may xaar ñu dóoral ñu ko à la une ñoom ñu ñëw fël tey ci ay affaire yoo xam ni yu kenn comprendre moo tax tey mere naa leen torp la pu ñu naan la purge waaw mais ñuy fu ñu jógee tey ki ñu fëlee nii te gaa di xaar motax tay l'observateur ay sama journal xara wala lob si ñëw may mané dindil ma quotidien mi way ñi ñi tay xolal nekku ñu ala mode waaw waaw troublant suspense moy affaire bi rek tan bi waaw waaw waaw tam wax nañ nak ci gaynde ay yow gaynde du ñu nit de gaynde yi ah baab maa leen fi xasoon jéggalu naa ah ñii de démb de génne nañ basket bu rëy rëy contre Mali nga waa Mali nag gaa yi leen nax ndey sama ndeysaan sama mboq yooyu ah gaa yi dañ njëkk taseeg ñoom jël bal bi jox leen ñu doxal yaa ngi dégg doo ñu dóor yi métti yaakaar ni ñoom dèjà jël nañ coupe bi waaw ñu tasewaat demi-finale gars yi na ah <laughs> nawoon foo woon rek taxaw ma nag nuñ koy waxee ci bambara ne nawoon foo woon rek mais démb gis nañ buy de te match bi gën importance xam nga ñoom dañ ñu gañe ñun tooguñu ñu kon ne ñun ñu gañe leen ñoom ñu ñibbi moi les matchs les plus importants c'est les matchs à élimination directe xam nga Paris Saint-Germain bu tàmbalee championnat <laughs> day bëgg a mais match matchs bu gën am solo de finale bu ñuy joué booru février ay 14 février jëm le 14 mars ah muy muy match bu am importance bu ëpp gën am importance ci saison ñoom moom la ñuy perte dégg loolu baax na acca Walf Quotidien léegi kii mooy kan euh, xam nga ñaari ñaata yéene kaay mooy ñëw ñeen fukki ngeen fukki yéene ak ñaar man am na ay yéene yoo xam ni xaw ma ku ko moom xaw ma ku ko créé dégguma ku ko créé yooyu bu ñu ñëwee damay ne puusal moom nànk puusal puusal puusal puusal waaw kañ vol <laughs> nee na vol HC 407 hmm? dafa amoon ay jafe-jafe passager yi lépp lu ñu mun ci ay saar wala ci ay prière chrétienne walla juive wala walla walla wala def nañ ko laa <laughs> illa avion bu am jafe-jafe graaw xam nga lu tax retour bi retour bi xam nga lu tax pap <laughs> avion de bu dawee cinq minutes ba mu leer yaa ngi sa kaw asamaan si muy weñ buy weñ weñ buy def nii rek mu leer la ni bu ne tël bakkan du fi desati ye xamee ni suñu borom mooy suñu borom man avion daf maa neexul rek man avion hmm? hmm? àllum neen avion daf maa neexul acca <laughs> ñu dem ya yor yor ñoom ñoom ñoom ba tey rek ci tàgg Pastef <laughs> yoor yoor ñoom yàqu ñu ko de ne butuwuñ de ñoom tagg Pastef rek neetañ nee nañ nee nañu maître Demba Touré ak Ousmane Diagne ñii ñooy xale yi nga xam ni ñoo fël temps yi ci biir Pastef diriger résistance bi dégg nga lool acca ca pap ko yoor yoor journalu Pastef ñii mën a lan tribune ah tribune daal ñaari fan yi xulóowu ak ñoom ñu ngi ci axe bi maanaam li boy nee grand teg ma ci axe bi temps tegu nga ñoom bu ñu bàyyee buggaan rek nekk ci axe bi mais bugaan guddi bugaan bëccëg bugaan ngoon tegu leen ci axe bi lii mooy xiwaar très bien merci tribune continué leen nii rek bàyyi leen bugaan bu ko bugaan ne xaw ma lan ngeen bañ leen ko teg ci seen journal na dem jàll beneen journal mooy dëgg sax aca ah ñii la waaye rombal ma kii waaye tamit yow ah, ah. lii quotidien lu mu wax <laughs> ah Macky Sall mu ngi si jafe-jafe yu métti xamul kan lay tànn xamul nan lay tànni <laughs> aca aca rombal lépp mu ngi ci chronique bi faram fàccee bi ah ci kan la Wa yow wa réew people yow yow tamit yow mun nga ma jox réew mi toog ba si ma people waaye yow man yaakaar nga ni na tok fi man di people man ah wa yow tam nak bayil di ma togn way. continuel oja toujours égal à lui-même oh <laughs> bi ka? xoolal observateur moo joxe détail yu réunion démb bi non damay xamal ne man du ma publicité journal de pour gars yi jënd ko de ah mais nag tey dinaa defal publicité observateur de non ku bugg xam dëgg-dëgg li xew pale démb dama jëndi ah <laughs> non pale démb comme sabar bu tas lépp mu ngi ci chronique bi ci laa koy faram-fàccee dégg nga aca continuel hmm? le regard waaw le regard ak le soleil neex nañ ma tey nee nañ le gouvernement étale ses preuves ci mbirum yaraax bi waaw nee nañu legi nak joxe nañu turu ñi blessé joxe nañu sax turu ñaar ñi genn aduna <laughs> na ci delu ci chronique bi liñ ci mun japp dal moy nee ñaari sœur lañ dégg nga loolu pap ñaari mag a raq lañ ñom ñaan ñep japp nañ ni ay peul fuuta lañ ñom ñaan ñep ñu ngi sant jàlloo qui a 21 ans, qui a 7 ans. Quand deux femmes, voilà. deux femmes. 21 ans et 7 ans, quand deux femmes. Alors, quand deux a deux filles, 21 ans. Hein? Est-ce que les gars, ils ont eu ça, ils ont d'une même famille ah loolu métti na de d'une même famille li ma leer ba leer mooy comme que léegi joxe nañ tur ah famille yi léegi ñu feeñ ah famille yi nañ feeñ famille yooyu bu ñu feeñee wax am nañ ay dëkkandoo ñaar ñooñu ñu wax ñoo génn àdduna même bu dee xale bi sax peut-être amul photo ndax juróom-ñaari at la am waaye ku mag ki am na photo voilà ah yooyu dina génn génne nag kenn dootul weddeeti am na ñaari nit ñu dee si génn àdduna acca ñu dem hmm? ah évidence nee na waaw moom de day eh, xam nga xam nga dafa am ay journaux fan yoo xam ne dañuy def promotion candidat ah ñoom évidence tey promotion candidat lañ def daal nee nañu dañuy xamaleeg waa ji Amadou Maam wax ay force am war a tax ñu jël jël réew mi jox ko ko <laughs> cey l'évidence jàllal suspense walla su wax suspense def photo candidat yëpp teg hey ñi bëgg acca ñi bëgg waaw antenne le gouvernement d'attaque société civile charge sévèrement Maki. indépendant ok baax Sonko est-il suicidaire critique ñu est-ce que Sonko day xaru ndax tey la entamé juróom benneelu fanu grève de la faim bu ko kenn fàtte te d'après xibaar yi génn moom dafa am benn garab boo xam ne moom lay jël garab boobu nag état bi nee nañ duñ ko ko jox prison beneen garab équivalent lañ koy jox te nee na moom du laal boobu garabam la bëgg mais maanaam fu mu toll nii Sonko naanul ay médicament ba pare mu ngi toll ci sixième jour grève de la faim moo tax ñu ne est-ce que waa ji nekkul di xaru man de xam naa ni ay heure rek su ma ko grève woon de la faim ay heure xama ay jour de yow baab man xam naa ni su ma grève woon de la faim ay deux heures de temps rek gars yi ñoo forme yóbbu ñi ay jàmbaar lañ de six jours acca acca damay kursaale ak temps bi de la illa temps bi gaaw wacca rombal an xeetu yenn yéene ka rombal ah ete fa laay yem ah soleil tey laay yem ndax temps bi temps bi laay geeral soleil soleil jox nañ ñu tuuru ñaan yi génn àdduna soleil moo ñu ko jox mais soleil yamul foofu soleil nee na douze personnes yoo xam ne jàpp nañ ne dañoo laale ci mbir mi jàpp nañ leen entre yoof Yëmbal pikin ak feneen ak feneen douze ah kon léegi mbir mi leer wala <laughs> loolu rek lañ bëggoon de mbir mi leer du gaay yi leen jàppee nañu wax waaye yéen lu tax ngeen dem taal bus lu tax ngeen sànni cocktail molotov bi ak kan moo leen yónni qui est dina leer nañ leen wone rek wala nañ leen won yóbbu si fi mbaxana doonee benn sénégalais yëpp ñëw couvrir muy journaliste yi ñu ne ñun kat tel personne moo ñu jox koppar nañu defar leen cocktail dem leen yaraax xaar fa 65 bu biis bi ñëwee ngeen taal fa cocktail bi bu cocktail bi tàqee ñaari nit dee ñu xam ni ñun duñu seen morom waaye sénégalais yi dañuy xam kan moo joxe xaalis bi ak képp ku participer ci mbir mii dañ laa war a jàpp tëj la ba damm caabi ci dégg nga loolu ndax loolu mooy li doon wax l'horreur la barbari bu dee noonu la amee ñooñu lu ñu war a arrêter la tey bi mooy nekk première ak dernière fois nit dem di attaqué wu ci ay civil dégg nga acca acca nañ ko yemale foofu Huh?